My little dude, do the shoot. Come back with Nous observons la minute de silence. Merci. Kung Fu de Fushen Ninja. Ils sont présents. Le Kung Fu. Nous comptons pour deux choses te ben bi gëna am solo yi ci dess. muy que Baba, mi ñuy rendre hommage suñu frère la magam Mamadou Gueye on a tout fait ensemble yalla dogal aussi à travers mom ñu xam Baba. donc lepp luñ dund ak Six daanaka dund nañ ko ak baba ñu xamone ko lol lol. lol biñu frère bi waxé que ni mom lu def mom la def en tout cas mom la jël comme diko défalel mémorial

jiite aussi mouvement bu ñuy woowee ànd soppi Thiès fas aussi élection locale yi di ñëw teg benn liste liste ànd soppi pour demander aux Thiessois de l'Est de nous confier la commune pour une véritable gestion de proximité pour ñu am ay conseils yu ñu xam pour ñu am ab maire bu ñu xam pour ñu am ay autorités locales yu jege seen population ñaari raison yooyu moo tax tey ñu accepté avec plaisir parrainer journée bi di ñaanal baaba fi mu nekk gënal ko fi mu jóge yàlla seddal suuf si kawam euh, bëgguñu sori ci waxi politique xam naa dinañ am yeneen occasion incha allah ñëwaat fayu waxtaan ak ñi fi fekk ñëpp mais c'est avec plaisir qu'on vient partager ces moments là surtout bu ñu gisee xale yi nekk fii di leen féliciter aussi parce que nous mission une mission d'encadrement, une mission d'éducation. éducation la yor di outu parents yi ci moment yo xamanteni xalé yi dinañ leen ko confier ñuy def ci ñom ay valeurs yo xamanteni da leen di servir toute la vie donc di leen remercier encore une fois di leen wax ne on est disponible à vous accompagner Ça, bu ngeen ko soxlaa. rahman rahim monsieur le délégué du quartier de Fayon, Monsieur le délégué du quartier de route de Dakar 2, Monsieur Dembagnan, parrain de la quatrième édition de ce festival, Monsieur Alendiaï, responsable politique, Madame Daiware présidente du Malixi Judo, cher Boudoka, très chers invités. Le Festival des Arts en est déjà à sa quatrième édition, traduisant ainsi la volonté et la détermination de ses initiateurs D'illustre fils et ambassadeur infatigable de s'inscrire dans une logique de pérennisation de cet événement, devenu un moment phare dans le calendrier des activités culturelles et sportives du quartier de Fayou. 1. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la quatrième édition du Festival des Arts Martiaux de Fayou. Permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à mes camarades organisateurs et mes encouragements à persévérer dans cette grande initiative. Permettez-moi aussi d'adresser mes remerciements pour le choix porté sur certaines personnes pour être les parrains de cette édition, ce qui constitue une belle reconnaissance de leur mérite, un témoignage de leur générosité et la fierté d'une ville à les avoir et les savoir à leur côté. Chers amis, cette quatrième édition du Festival des Arts de Fayou a une touche plutôt spéciale, car pour cette année-ci, il s'agit de rendre un vibrant hommage à un partenaire, à un ami, à notre regretté grand frère, Baba Gueye, qui nous a quittés, qui nous a été arraché de notre affection au soir du 16 décembre 2018, il y a de cela 103 jours pour être exact. Et je m'en rappelle encore comme si ce fut hier. Ça aurait été tellement un plaisir pour toute la famille de revivre cet événement que nous avons toujours partagé avec lui depuis sa genèse. Mais le bon Dieu en a voulu autrement. Aujourd'hui, je me réjouis et rends grâce à Dieu d'avoir eu la chance de pouvoir faire quelques témoignages à l'endroit de sa personne. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions tous les deux heureux et tristes en même temps. Il m'a parlé pour me dire qu'il allait bien, sans doute pour me réconforter. Il avait l'air fatigué. Je suis sorti de sa chambre d'hôpital, confus car je n'avais jamais vu mon frère dans une telle posture de faiblesse. Et hélas, ce fut la dernière fois qu'on allait se voir sur cette terre. qui ont transmis le sens du partage, de la générosité, de la solidarité, du respect et de la vertu. On pouvait dire qu'il était un esprit avant d'être un homme et à chaque fois dans ce regard, facilement, on s'apercevait de la clarté de son âme. Chers amis, je voudrais profiter de ce moment de communion pour remercier tous ceux qui ont compati à notre douleur. Ce fut des moments très particuliers que nous avions vécus durant cette période, mais vous nous avez soutenus, épaulés, vous nous avez redonné de la force à travers vos messages, vos gestes et de par votre solidarité. Comme nous savons tous, c'est très dur de perdre un être qui nous est cher. Mais on ne peut se résigner à la volonté divine, en sachant que c'est lui qui l'avait amené sur terre et c'est lui qui l'a repris. Et, du, et tout au fond de moi, je sais que mon frère, là où il se trouve, est meilleur de là d'où il vient, car il était un homme de bonne foi. Peut-être que ceux qui disaient qu'il n'était pas fait pour ce bas monde avaient tout bonnement raison. Mais toutefois, son départ pour l'éternel a laissé un grand vide dans nos cœurs et surtout dans celui de notre tendre maman. Babou, familièrement, comme on avait l'habitude de l'appeler, vivra éternellement en nous, en nous tous. Et personnellement, il restera incontournable dans la trajectoire de ma vie et je continuerai à remplir sa mission sur Terre. Au revoir, mon frère. J'espère que quand on se verra dans l'au-delà, dans les plus hauts paradis, on fera ce combat de judo dont on parlait tant sur ton lit d'hôpital. Repose en paix, mon frère, que la terre de Touba lui soit légère. Amis sportifs, Amis sportifs, organisateurs, décideurs, je vous invite tous à venir soutenir et participer à cette belle fête des arts martiaux que nous devons sauvegarder et perpétuer pour léguer un bel héritage aux générations futures. Enfin, je ne saurais terminer sans adresser de vifs remerciements aux clubs participants pour cette régularité qui permet d'inscrire l'événement dans le calendrier sportif du quartier de Fayou. Vivement que vous trouvez ici l'humanisme, le respect, la modestie et la sincérité des arts que nous les pratiquants portons en bandoulière. Je souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans notre belle cité de Fayou, future capitale des arts et que la Suède soit belle. Je vous remercie. J'ai commencé ma vie sans toi, j'ai pas terminé sans toi. On se quitte pour se retrouver et ça recommence à chaque fois. Y'a pas de seconde chance avec toi, moi j'ai trop parlé.

galera, mano. mënee tontu affaire bi jeex ma laa gën a kaw. waaw. bu góor gi meññ na ko di laay laa wuy kaj na tànk ba woy yaay.

돼 우리 그래 그래 우리 우리 이래야 하나 유쾌다 유 ensinando. Hey, man. Hey. Sit tá, on the Jimmy. Oi, Jamaite. É, Somebody. Okay. Somebody, please, I guess you can. Gambia. Boy, boy, yeah. boy. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo taamu di seetaan li nga xamante ni mu di Thiès Info maa ngi fii nag tey jii di fayu mu tey fekk si waa arts yi tey nag mu nekk seen quatrième festival des arts martiaux de Thiès yu nekk fii nga xamante ni moo di fayu maa ngi taxaw ak ki nga xamante ni moo di Mouhamed Gueye l'organisateur de ce festival Mouhamed su maa ngi leen ñoo ngi lay fay di nuyu mbokk yi seetaan yëpp Thiès Info Thiès TV ci àdduna bi at Sénégal di leen sant di leen gërëm seen teewaay fii nii. Mouhamed ren nag mu nekk seen quatrième festival des armations martiaux bu nekk Thiès fii fayu naka ngeen euh, waajalee li nga xamante ni moo di quatrième édition bi. waaw kon euh, nuñ ko xamee ren euh, mooy suñ quatrième édition du festival national des armations de Fayu bon nuñ ko waajalee comme nuñ daan waajalee yeneen yi rek mais plutôt bii nii dafa am benn touche bu spéciale parce que bii dañoo def mémorial. lu tax ñu waral ñu def mémorial dañ doon rendre hommage rendre hommage à une personne boo xam ni dafa nekkoon nag ñun yàlla def mu wàññeeku daaw ren nekk moo tax édition bi doon spécial ñu ko ci doon sargal doon ko ci euh, rendre hommage ci édition bii nii. Euh, édition bi tey euh, kan ñan ñoo nekkoon parrain yi. waaw amoon neen parrain ku ci mel ni Demba Niang Demba Niang bu président mouvement alternative citoyenne gëm sa soppi Thiès moo nekkoon suñu parrain am nañ ci tamit. moom moo nekkoon pare mais am nañ ci n'empêche ay nit ay autorités yoo xam ni def nañ ci seen loxo ba yàlla def euh, bis bi ak si fii nii mu agsi mais tey ñaata ñaata école ñoo ñëw euh, def li nga xamante ni moo di seen prestation tey ci festival bi. waaw euh, comme ren ñoo ngi ci quatrième édition bi dañuy sant yàlla parce que à chaque fois suñuy avancer rek ñoo ngi gis ni affaire moo gën a am ampleur au début ba ñuy commencé première année bi je crois que ñoo ngi amoon ay quatre yu fi nekkoon mais ren mën nañ 11 clubs y présents parce que am d'abord association des clubs de judo boo xam regrouper regroupé na judo club euh, judo club du lycée de Medina et le judo club du collège Saint-Gabriel Nous avons ñooñu trois clubs qui présents le club Temple Noir le club euh, Kenfu fu Fushen et les Flammes du Dragon Nous avons tamit ñaari club karaté le ñëw euh, Madani Karate club et Lamp club sans oublier Nishinam le Club bu def présence et Yesekan Yasekan ak tamit club gymnastique bu SNEF donc club yooyu yëpp présent nañ ci édition bii nii. mais naka nga gisee seen prestation yi xale yi ñëw li ñu wane. waaw prestation bi macha allah parce que ñun suñu objectif premier rek bu ñuy commencé leen la woon mais c'était le de faire la promotion des différentes interventions te gis neen ni xale yi macha allah vraiment am nañ talent et que liggéey bi yëpp euh, mérite bi yëpp ça revient au maire mairie le revenir gis ne niveau bi ni parce que lii nii day permettre niveau bi gëna élever touti en plus euh, nit ñi gis ni lutax tax ñu koy def ni sur plein air bi pour nit ñi suñu gisee ñi di pratiquer ñu mëna a sen doomi ñu mëna a parce que armation dafa doon lo xamni euh du war ñoo xol côté martial bi mais côté éducatif bu mu am moo solo ci ci mbir mi donc vraiment don na lo xamni niveau bi machallah quoi c'est satisfaisant. mais sport bi est ce que est ce que neex na ñëwé est ce que yomb na. Wow, armes bon du loo bon dama nan yom na yombul. waaw parce que su fait que ngaa parce que yow no nous rek ñun mën dem ak yow non. su fait que ngaa pour def par exemple dugg ci pour sa yaram dina la ci sa yaram parce que am ay mag parce que différentes catégories d'âge des am ko am ay xalé ay jeunes am ay pas yo bon plus de 100 ans ñoo sont pas des compétiteurs ku nekk yow li nga bëgg rek en fonction de loolu lañ lay fekk si waaw su fekkee compétiteur nga nekk dafa doon loo xam ne yombul parce que compétiteur moom xam ne na travail de compétition lu muy laaj liggéey bu métti met parce que xëy xëy rek doon champion c'est pas facile il y a un un travail boo xam un énorme travail boo xam war nañ ko def des années durant te il faut souffrir essayer de dépasser ses limites te loolu noonu c'est pas facile vraiment ci compétiteur. mais euh, li nga xamanteni modi moo nit da koy defar pour pour pour defar yaramam wala c'est juste que euh, pour me défendre ci euh, boppam en cas de violence wala dara. waaw loolu tamit bon ya a une petite nuance su fekke nit ñi ku xamul arts dañ naan ki de day def judo wala day def karaté eh, na ngay jang xex pour man bon man gisuma arts martiaux côté martial bi gisuma ko man man ce que je vois ce qui est plus important c'est le côté éducatif avant tout les amateurs sont une école de la vie loolu moo solo dañ lay jangal ay code moral code moral ce sont des choses que vous ne nga par exemple ñu jangal la qu'est-ce que la sincérité la modestie, le contrôle de soi. Par exemple, le contrôle de soi, moi, savoir se taire lorsque monte la colère. C'est là ay euh, ki yo xamni la critères yo xamni la non seulement da nga kaa war ci salle mais tamit ci mbedd mi at école ba at fepp fo mënti nekk élève bi da ka war di donc côté éducatif bi c'est plus important que côté martial les arts martiaux sont faits pour éduquer en particulier voilà. mi naka nga jàngatee li nga xamante modi première édition bi ba quatrième édition bi ndax sentir ngeen yokkute. Wow, Mashallah, Mashallah, Santé allah parce que ce malheur en jeunesse il faut nous commencer. première édition bi idée bi nii rek la hein parce que dañ doon dox maag ben copain mu ne ma boy pourtant ñun lu ñuy dem di def prestation ci yeneen ko ñu ñuy invité mën nañ ko def suñu ko man ko lool de dëgg la mu ne ma am nañ ay tapis am nañ lépp pourquoi pas duñ ko def noonu rek ñu calé benn date et puis bon noonu la ko yàlla defee première édition bi ñu defee ko ci benn rukku bu ndaw invité quelques clubs ngoon si la ñëpp ñëw 17h ñu commence deuxième édition bi ñu def yenn defar ay t-shirt ay lacoste gars yëpp am ci troisième édition bi macha allah ñu defaraat ay lacoste ren tamit quatrième édition bi gis ngeen ampleur bi gën a bëri gars yëpp dañuy ñëw yendu xam nga a tout ça vraiment ñoo ngi ciy sant yàlla ñoo ngi yokkute à chaque année lu ñuy gën di dem rek budget d'organisation bi di gën yokk ñun sax dañuy surprendre te vraiment ñoo ngi yàlla ndax budget bi lu mu élevé élevé élevé ñoo parvenir à à satisfaire nos vraiment. ana lan ngay wax ñi nga xamante ñoo di askanu fayu bi génn euh, dooleel leen li nga xam dooleel li nga xamante ne moo di manifestation bi tey. waaw bon je lance un appel à tous les tous les habitants de Faye ñu savons que dafa doon développement parce que vraiment les yi des leen di canaliser des leen di yar duñ leen bàyyi ñu taxawaalu suñ école ba ñu ngi salle pratiquement toute la soirée vraiment il est di encadrer di trop vraiment donc je lance un appel les parents yu font dafa c'est trop brutal ñu doom ñëw def ci judo di population Faye bi nous organisée pour nous, on avait la possibilité de faire un stade euh, stadium parce que wala un endroit on nous a proposé à maintes reprises de placer, mais on a dit non pourquoi parce que l'Union organisée, c'est pour la population de Fayou, Fayou, quartier baissé. il faut que au moins ñu def activité pour nous vraiment dina une identité euh, koñ te ñun lu ñu bëgg mooy inscrire euh, événement bi ci calendrier sportif ci beaucoup fayu loolu lañ bëgg. kon Ahmed euh, ñu ngi lay remercier de la bàyyi nga wéy de li nga xamanté modi euh, festival bi. Mhm. waaw man ma ngi remercier waa Thiès Info commençant par son directeur monsieur Seylatir di remercier toute l'équipe de de Thiès Info présente donc sant naa leen gërëm na len di wax seen liguey bi ngeen def rafet na vraiment yéen ngi participer ci développement réew vraiment seen liguey rafet na jërëjëf merci. ñu ci quatrième euh, festival Armansio bu Thiès ñi nga xamante ne ñoo nekk fii fayu kon nag mi programme bi ba tey jeexagal du ma leen di bàyyi rek ak sama caméraman ngeen daal di wéy li nga xamante ne moo di euh, euh, prestation wu li nga xamante ne moo di club yi kon nag mi seetaan leen ko.